comme mbokki Sénégal ñu ngi leen di jaar di jaajëfal ñëpp di nuyu euh, rawatina waa site bi nga xam ne mooy Senclic euh, di leen jaajëfal bu baax a baax a baax ah vidéo bi nag euh, du question la dama def ko du jàmm rek moo tax ma def ko woote jàmm ci réew mi parce que tey ay doomu réew mi lañu ay doomu sénégalais lañu xam nga nekk ci réew mi bokk ci réew mi. kon boog bu ñu gisee wax dëkk yàlla am luy waaj a xew ci réew mi loo xam ne ni tamit yéeruñu Sénégal des ginnaaw ci ci pays africain parce que tey boo xoolee ñun suñu baaxu maam yu njëkk yi dañoo nawoon ci réew mi euh, maanaam nekkoon ci ay ci ci ci ay yor yor éducation boo xam ne nii vraiment bu baaxoon la ba àdduna bi yëpp naw ñu tey boo xooloon bu ñu naan démocratie Sénégal dañ ko njëkk a boo gisee tey ñu doon wax ay exemple yu bari ñu ko doon jëlee ci Sénégal ba tax dégg naa ñu naan tey Senghor ci boppam boo ko laajoon la la fi njëkk a bàyyi dañ naan Sénégal dialogue la fi bàyyi Sénégal réewum teraanga la fi mais tey toll na foo xam ne vraiment ñëpp tiit nañu ñëpp jaaxle nañu parce que boo xoolee tout récemment rek euh, depuis 2017 2018 euh, li fi xew ci Sénégal lakk yi bare woon na xam nga accident yi bari na nga gis jamono bi ñu toll tembe tembe xale yi ñu jël di leen saccagé di leen rey te kenn xamul lan moo tax vraiment mënu loo xam ne tey lu lu tiis askan bi la lu métti askan bi la euh, tey fi ñu toll nii tembe tembe yaa ngi gis éducation xale yi jàngatuñu te ba mootul fu ñu jëm du neex tamit ndaw yi parce que dañ naan chaque jour ndaw moo yore réew <coughs> parce que doole ndaw tey nag toll na foo xam ne coow li na mu diggante état bi ak opposants yi ak politiciens yi vraiment fi ñu toll askan bi yëpp ku nekk fa nga nekk yaa ngi toog yaa ngi toog ci jàkkaare jàkkaare mooy lépp mooy lan Sénégal bi la ñuy waxtaanee Sénégal rek la ñuy waxtaanee kon lépp ci waxtaan Sénégal pour man bu njëkk ba dañoo jël Sénégal daal daal di koy diisoo parce que dama doon dégg ñu naan à l'époque dañu leen diisoo ak nappkat yi diisoo ak jàngalekat yi diisoo ak paj mi diisoo diisoo léegi nag vraiment mu nekk na xamatul lan la léegi bi ma nekkee xale ak kàddu yi ma dégg léegi wuute na ba tax na damay laaj ci jikko yi la wala réew mi doxee noonu tey boo xoolee pays africain yëpp fii doon am guerre ñu ngi wóote jàmm ture sama boo xoolee Niger boo xoolee Ghana <clears throat> boo xoolee Cameroun boo xoolee yeneen pays yi amoon ay guerre yu bëree bëri bëri bëri léegi amatu guerre ñu ngi woote jàmm di suqal seen dëkk muy émergé wu di avancé bu baax a baax a baax a baax tey xoolee pays africain doon ñëw fii tey doon ñëw suñu réew fii doon fi wut si tey ñu bëri ñibbi nañu tey di defar seeni réew ñun nag ñu ngi commencé ci beneen côté ba am ñoom fu ñu fu ñu njëkkee ñun foofu la ñu mujjee muy maanaam ci coowoo chaque jour boo xoolee le 23 juin bi weesu at yi wees dama na woon ni coow di bari lu mun lu ne xej na ci boo xoolee ñi ciy génn àdduna yëpp ay doomu njàmbur la ñuy doon même ñii di ànd di dem di woote pour xeex sax doo leen gis ci biir seen doom yi seen njaboot yi kon man may interpellé jeunesse bi <clears throat> tey maa ngi ñaan jàmm ci réew mi vraiment su rawatina ki nga ne mooy président Macky Sall président Macky moom parce que tey réew mi moom moo toog ci kanam moo yore moom moom mooy lépp kon tey moom na woote jàmm xama ci opposant yi parce que pour man dam naa opposant amul ñëpp benn lañ pour man parce que ku nekk buy xëccu rek la mu moom rek lay xëccu maanaam muy réew mi kon tey jot na ñu toog ñoom ñëpp parce que tey ñu teg ko ci taabal carré ou taabal rond ñu waxtaanee ko moom en personne moom mu jël lépp engagement mu toog mu laajte mu waxtaan réew mi ñëpp xam nañ fan fan la dëgg féete bu fekkee ne fii la dëgg amul ñu jëm ko waxtaanee teg ko ci yoon bu fekkee ne fii amul tamit dëgg ñu wax parce que képp koo gis rek am nañ ku lay ku lay ku lay mën a wax dëgg parce que am na am na am na am na ay député fu nekk am na ñoo xam ne ñu ngi fa kon ñooñu tey boo gis ñu tey la waxtaan que réew mi foofu lañ koy dissoowee muy ambassade mu muy muy euh, ñi nga xam ne tey ñu koy jiitu ak ñi ci topp yëpp mais tey boo xoolee le 19 bi nga xam ne moom ci lañu war a dem muy suba incha tey ñu ngi ñaan Sénégal yàlla def ci jàmm parce que le 23 juin bi passé dem na ba cool bari ba wax ji bari yàlla def ñëpp seen xel dem ci ma Abdel Dabakh Malick nga xam ne moom daaloon xaar dara lenn ci lenn ba ñu tegee kasetam ya vraiment yàlla def jàmm ci réew mi kon boog ñu ngi ñaan ñi nga xam ne tey ñoo yore média yi tamit bu ñu xaar ba suba di kasetu Abdel Aziz Dabakh ak kilifa diine bépp fi nekk boo xamee ne war na mën a àddu ci ngir yàlla wàcc parce que réew mi fa mu jëm nii vraiment li muy xëy neexut boo xoolee tamit da ngay xool parce que réew mi fépp ay métti kon nañ leen jëm a sauver Sénégal jëmale Sénégal ci kanam wax ci affaire yi parce que vraiment waxee ma cadre politique mais may wax rek en tant que doomu réew mi sinon boo ñaan la sa dëkkandoo jàmm da am jàmm boo amul jàmm doo am jàmm parce que ay du yem ci boppay borom kon donc Sénégal jàmm dong la ñu xamee kon nañ ñaan jàmm ci réew mi kilifa diine kilifa aada yi ñëpp toog waxtaanee yëf yi parce que lii ëpp na te luy raam ci ñag bala te bu fa demee du neex kenn kon boog loolu laa am lu ma la xam ne lu may wax ci ci ci ci sud bi vraiment parce que ñun ñëpp dañoo jaaxle saa yi njaboot yi jaaxle nañu xale yi jàngatuñu xale yaa ngi nii ñu taxawal ci mbedd yi bari na boo xoolee tey lu ne ku nekk xamoo foo réew mi xat na xol yi na kon nañu jël xel yi ak xalaat yi te jëm émerger wu jëmale Sénégal ci kanam wasalaam maa ngi jégalu ñëpp di baal ñëpp ak di nuyu ñëpp diaspora bi ñëpp naan nañu ñëpp jëloon la xel xalaat yi indi ko ci réew mi waxtaanee ko président Macky Sall li ma lay conseil mooy jëlal affaire teg ko ci taabal waxtaane ko ñii nekk ci prisonnier ci prison yi ñu jëm a xool ñuy bàyyi ñu bàyyi leen ñëw a mën a toog liggéey ci réew mi liggéey ci réew mi loolu dañu ñaan yàlla yàlla defal ñëpp jàmm def dégg ak topp loolu doomu la am lu may en tant que Amadou Diallo doomu Sénégal doomu réew mi loolu laa ñaan yàlla askan bi tamit ànd ci dox jàmm dem jàmm ñëw jàmm lu waaye xëcc dóor nga xam ne sa bopp que réew mi nga dóor policiers yi nga xam ne ñoom la yàlla teg ñuy aar réew mi tamit lépp loo yëkkati def ko ci biir askan bi na nga leer sa bopp nga def la parce que yow mi sa boppam sénégalais nga comme ñooñu te yow mi nga xam ne li ngay poudre bi nga jël tey di ko dóor nit amaan na yàlla bu mu am te bu amee mi sam du la neex waaye lépp état la lépp gouvernement la kon tey ñu ñooy état ak gouvernement bu ñu ko boole neex day mel ne cere ak soow kon tey day mel ne suukar ak lem kon na réew mi neex na ñëpp ñaan jàmm Sénégal émergé ñëpp liggéey ànd dem képp koo xam ne def na lu du yoon ñu teg ko ci yoon képp koo xam def lu du yoon ñu jéggal ko te yàlla ka tax te yàlla mi bind doomu aadama sax day baale parce bu baale woon kon duñ fi des ba léegi parce que luñ def ko yàlla fayu kon yàlla mu ñuy jéggal waxtu man ak doomu aadama dañuy jéggal te jëlale wasalaam asalaamaaleykum